naa yëgle combat mbaam ak Diène Kaïré ah teel na ko yëgle ah le grand champion euh, Zarko euh, balaa ñuy dikk ci làmb ji seen yow mooy imam Tall dafa am ay mbokk fee sa Kër Massar mm. imam bi dem ci anam bu metti nag bu jafe parce que imam bu ñu koy wax kilifa la ci diwaan. Mm. bu xëyee demee noonu dina jafe mais euh, dañuy bàkkee leen Grand Yoff yow nga doon porteur de voix mooy ñàkk karange ba ñenn ñi jàpp ñi sax digganteem ak sétoo ñenn ñi bu ñu dee xëy bu leen gungewul du mën a xëy ñàkk kaaraange boobu ca Grand Yoff en tant que yow porte de voix pour yow lan moo ko indi ak lan moo ciy pexe. non man je me dis que ñàkk kaaraange Sénégal la. Mhm. parce que Grand Yoff benn ruq bu ndaw la rek biir biir biir Sénégal. pourquoi ñu leen koy bàkkee. parce que boo xoolee eh, bëri na eh, genre détail yu mel genre détail yooyu. ci Sénégal fépp nga koy dégg. Mhm. donc maanaam boobu bu bu bu bi xew foofu dafa dafa am doole. Mhm. dafa nekk koo xamante ni kilifa la dal. comprendre nga imam li la dal te kenn xamul eh, lan moo ko yóbbee kenn xamul lan moo ko def du agression du du du dañ ko agressé wala dara maanaam boog eh, lu ko dal la ndogalu yàlla la ko comment comment qu'on puisse dire. léegi enquête bi kenn mënul wax. non kenn mënul wax lii la kenn mënul wax lële la. mais que moom bi ñu ko génnee foofu lépp lu mu yoroon ñu ngi ko fekk ci moom. Ah, muy. lépp daal lu àndoon ak moom parce que dafa jóge julli fajar di doxantu ñu fekk foofu loolu parce que eh, munuñ ne agression la munuñ ne nit moo ko def munuñ ne dara mais eh, Sénégal ci boppam moo amatul sécurité pour lu ko ah mais mooy ñu ñu ñu xo jéem a xoo rek nan la ñuy defaree ba defaraat defaraat sécurité en Sénégal loolu noonu ci état bi lay commencé parce que ñoom ñun dañ leen di fay pour ñoom ñu garder ñu garder ñu garder suñu alal donc ñoom ñoo ñu war a sàmm mm-hmm. loolu la quoi ah c'est da nga ko nuyoo moo tax ma ni woon xaaral ñu dee ko mais làmb ji moo la fi gën a indi. sànq dama la tàkki ne ni la euh, da nga daan mel ni ko daanu. Hmm. Euh, parce que dama gis ni après sa victoire doon victoire bu rëy maanaam nga bëree daan duma. Hmm. loolu lépp am ci combat bi nga waroon savourer sa victoire mais après ci plateau yëpp da ngay ñëw di jooytu hmm. maanaam dagg nan ma temps aj nan ma temps. loolu tax sànq ma ni la da ngaa daan. mel na ku daanu daanu waaw est-ce que euh, sanction yooyu dala bett wala dala jëlee kaw wala lan mu lan nga ciy naxarlu ca diggante ak Ada Fass non wax dëgg yàlla moom man moom <clears throat> nu mu la ko mën a waxee sanction yooyu moom man moom bugg nekkoon dirigeant au CNG Zarko nekk benn mbër bu dul man du ma ko sanctionné. lu tax contraire dama koy dama koy dama koy dolli sax xaalis. Zarko jubbantil sa micro tuuti mu ñëw ci gémmiñ gi ñu xam dama koy dolli sax xaalis. parce que làmb ji yooju dekkoon na làmb joo xamante ni ñu ngi ci doon xaar tension bu nekk. ñu ñëw fexe ba làmb ji ànd ak dal ànd ak jàmm. kenn nekk ci jàmm ñëpp mu jeex ñëpp ñibbi si jàmm. kon donc surtout ak population grave ni ñu leen doon xaaree naan dina am agression dina am nangam dina am sàngam. yàlla dimbali ñu ba loolu yëpp amul donc mbër boobu noonu pour man da nga ko war a féliciter quoi encourager ko mais dagg bi nag d'une part metti na ma nag parce que yow mënoo <laughs> dese CNG benn 2 millions waa CNG jël ko ba pare. Euh, jël reliquat bi jël 1 million 300 ba pare ne la aj nañ la un an donc yow après doo xam ne muy nduróol quoi. Mhm. si mais loolu la rek mais nekkul loo xamante ni aussi même daan bi aussi man bi may xamoon naa ne damay daan booy bi mais xam naa ne daan bi du ma yóbbu fenn. du la yóbbu fenn. non lu tax. parce que niveau yi bokkul munoo daan baay ma njoon ba pare wëlbati wëlbatiku jël adafas faas daan aada mu lay yóbbu fenn. Mm-hmm. mu nekk bàyyi ma njoon bi nga koy daan jeexal na. te aada jeexal ya bii la. Mm-hmm. bàyyi ma ci victoire la jógee dafa jël xoyantaan dóor ko mu daanu. Mm-hmm. kon jeexalagul ci année bii nii la année bii laa bëreeg bàyyi ma njoon. si année laa bëreeg maa ma njoon bii laa bëreeg aada faas année bii laa bëreeg mbay guy gi. est-ce que du image bi lay collé moo tax CNG lii la parce que dañuy jàpp ni bu nee grand F ne Zarko violence parce que combat yi ngay bëri yëpp avant combat bi tension moom dañ koy. njort parce ci sa combat lañ gis lu ma sa gis ci làmb. Mmh. gis ay xale yu jigéen nekk ci internet yor ay jam. Mmh. seex kàgg booy aada faas loolu mosul am ci làmb. loolu loolu loolu xam nga ñoom seen seen xel a fa toll rek mais gis nga man eh, sortie yi ma def eh, ñoom ñëpp dama leen apaiser ne leen lii nag nekkul nekkul loo xamante ni moom laa bëgg ci làmb ji. parce que nit ki xam nga nit ki ni nga toll rek noonu ngay def ñoom li ñu loolu lañ sentiroon def peut-être gis nañu waa faas yi di def ñoom it lu leen neex di comme que affaire supporter la ñuy génn di yuuxu di saaga di def comme booy ni ñuy def ñoom tamit ñu def les même chose war ni leen di ragaluñ leen mais terewul man aussi maa ngi leen doon wax maa ngi doon wax ak ñoom naan leen du loolu mooy làmb ji làmb ji mooy man ak Ada Fass ñu dem euh, bàkku bëre ku daan ñu xam ni kii moo daan parce que nit ki tamit bu la bëggee xamul naka la lay naka. Eh, xamul sago quoi eh, du am ci yow sago. Mm-hmm. man <clears throat> Zarko benn étiquette rek lañ koy collé xam nga mooy lan. Mm. bandi géew la. Mm. bandi géew ça veut bu ñu demee ba ci biir làmb ji mais du ma dox ci àddina wala may dem fenn wala CNG bañ may étiqueté que ni yow bànni nga ci mbedd bi non non. Mm-hmm. parce que am na loo xamante ni man sama niveau mental dépassé na ko. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw <coughs> jaajëf Zarko euh, mais man Zarko man bëggoon naa xam CNG euh, li mu la dagg lan la reproché ne lii nga def ak lii ak lii ak lan lañ wax ñoom. waaw waa CNG moom li ñuy wax mooy que ni euh, da ngeen ëppal. ëppal trente plus de trente minutes. Mm. parce que loolu kese moo am si làmb ji parce que man eh, avant loolu dama amoon souci. Eh, dama amoon eh, comment dire. da ngeen a ëpp maanaam. ci seen préparation yi wala kii préparation da ngeen a ëppal 30 minutes plus de 30 minutes waaw. loolu ngeen ëppal. non eh, man sama bopp. waaw may sangoo butéel ak yooyu noonu. waaw dama jël plus de 30 minutes. ah minutes moo tax ñu def loolu. léegi 30 minutes yi moo tax ñu dagg. ñu dagg 1 million 300 1 million 300. Balla Gaye ñoo leen gën a guddee. ñoom def nañ plus <laughs> leen ah? mais kenn aju leen mais kenn aju leen. ah mais kenn aju kenn aju leen. Ah. mais liñ leen dagg est-ce que tolloon naag euh, parce que bu fekkee ne bi euh, euh, trente minutes un million trois cent kon une heure de temps dafa war a nekk. trois millions daanaka wala mu jege ko. est-ce que <laughs> est-ce que yëf yi demee na noonu. minute lañ koy. waaw man dama bëgg a xam dagg yi nu muy demee xam nga man man Zarko man yéen bëri man dafa am loo xam ne man pour man yéen war ngeen ko kaas parce que man CNG ni muy doxee doy na waar CNG mbër yii yëpp amul mbër mu ñu daggut. te CNG doo gis mbër nekk ci difficulté euh, ñu taxaw ci xam naa ne loolu moom pour nga tontu ci sax dana xaw a compliqué. non même euh, pas loolu mënul compliqué sax. <laughs> CNG dañu war a liggéey. donc ah yéen il faut que il faut que ngeen il faut que ngeen waa CNG tamit ñu wax xaalis bi ñuy dagg fan lañ koy dugal yéen ndax mbëri yéen a ngi gis seen bopp wala. non ñoom kay ñoo ci gis seen bopp ñun ñu ci gisee suñu bopp yow man yóbbu sama xaalis gisuma leen dégg ma leen nan laa ci gisee sama bopp waaye saa ñu doon wax ñoom kay ñoo ci gis seen bopp ndax ñoo téye wóoree bi ñun dañoo gis dara. mais te dagg bi amul amul nu ngeen mën a def pour ñu dellu ci si ginnaaw wala. dara mënul nekk yow bu ñu la xasee ba dagg kay xanaa kay aman eh, aj bi la ñuy dindi rek. mais dagg bi foofu xaalis boobu génne sa xel ne. Euh, dootoo si jotaat mais yëkkati woon nañ fi benn kuréel. waaw nu mu tudd ki dëkk parcelle. Xaadim Gajaga Xaadim Gajaga ak ñi mu àndaloon. doon nañu kaas lu jëm ci dagg yi ñu leen di dagg ak yeneen ak yeneen yoo xam ni mbër yi dañ koy euh, vivre. Mm-hmm. Euh, ci CNG bi. mais loolu xanaa bokk leen ci woon ak fan la fan la fan la. non xam xam problème bi mooy man période boobu noonu. boobu nekkuma fi woon. Mm. loolu moo tax quoi boobu man man maa ngi woon Espagne man daaw laay soog a ñëw. Mm. parce que gëj naa si làmb ji ça fait sept ans. ma toog compétir mu maay Espagne nekk ci sama liggéey. Mm. après bi ñu demee ba ba xamante ni xam nga bëgg naa dellu si looloo tax eh, c'est année passée la. moo tax yu bëri fekk ma fi quoi. léegi man yow gars yi dañ ñoo wax ne parce que yaag Ada loolu mooy euh, li nga xam ne dañ doon wax ne Zarko gis naa ñu wax naan Zarko mag la te man yow Zarko man lu def mag jaaxal na man lu tax gars yi bëgg a jékki rek ne mag nga. Ah, xam nga Sénégal loolu moo ñu tardé. Sénégal dañu ñu gaaw a rey sportif. waaw mais sport mun nga ko def ba sans dépend yow ci sa ci sa sa physique. sans mm-hmm. dépend yow ci sa xol. Mm-hmm. mun nga ko def sport ba cinquante ans. parce que nekkul loo mm-hmm. nekkul nekkul âge mooy mooy def sport. parce que je me rappelle Cristiano Ronaldo bi ñuy def transfert am à Juventus. ay xale yu ndaw la la la fa fekk. mais bu mu demee médecin bi mu ko xoolee pare dafa ko ni yow xaw ma lan ngay entraîner wala looy lekk. mais yow yaa ngi mel ni ku yor deret ku yor am ne amee dix huit ans hmm. même xale yi sax sa deret moo gën a baax seen deret hygiène de vie te man li may lu may lekk Sa Ndiogou dama eh, xam bu baax yow kii Sarko déglu ma. Sa Ndiogou mboroxe ngay lekk. Sa Ndiogou boo bëggee non. <laughs> mboroxe du la lu may lekk. Sa Ndiogou man du ma lekk du lekk mboroxe. waaw yow lan. du ma lekk mboroxe da nga am hygiène alimentaire. si da nga pour te dire vrai. du ma lekk maafe duma lekk suppu kànje du ma lekk eh, domoda du ma lekk ceeb bu xonq du ma lekk daxin du ma lekk cere baase du ma ko lekk doo lekk daxin wallaay la azim demal xoola laajal suñu waa kër daxin lu ci ne non dara nekku tege dege bi te en plus xam man dama dama amee estomac loolu noonu yëpp dama koy invité moo tax man lépp lu may lekk rek ñànk tang lay nekk pat yooyu lay yooyu yooyu lay doon mm. man loolu laay dundee maanaam eh, duma lekk loo xamante ni matière gras la waaye nag ndawal moom dam ciy lekk bu baax a baax. mais Zarko même pat yooyu Zarko yaa ngi daan Zarko. pat hmm. aussi dafa mais moo gën ci sportif. ah, ah. si ah. sportif moom eh, booy lekk. moom da ngay lakk ay calories da ngay soxla di jël mu nekk ay ñàng tàng affaire yooyu noonu. Hmm. Hmm. mais Zarko est-ce que nekkul nag da xaw a dellu ginnaaw ci làmb tuuti. parce que parce que boo xoolee ñi nga bokkal jamono. ñoom Modou Lo mën nañ ko natt ak ñoom Balla mun nañ la natt ci génération boobu mais sept ans yi nga def. est ce que nekkul ni moo la wàcce parce que sept ans bu génnee ci dund sportif day am retard bu bari boo xoolee ñi ngay bëreel li ñëpp léegi seen rak say rakk lan bu weesu Ada Fass mm. tey ji yaa ngi ñëw dal ci Diène Kairé da nga mel ne mbër mi may sens nga eh, te da nga waroon toll ci foo xam ne tey ji ci VIP la lay tudd d' accord eh, d'une part mun naa ni absence boobu ma absenté d'une part mun naa ni moo ma sauvé ci làmb damay nekk mbër di wut sens du ma jaar ci moom mun <laughs> naa ne d'une part <laughs> absence boobu noonu eh. d'une part moo ma sauvé d'une part tamit tar xaw na ma taaral tuuti hmm. parce que euh, boo xoolee man bi may jóge fii di dem euh, kii moo ma daanoon nu mu tuddati euh, non noono kii Modou Anta ah. moo ma daanoon ma dem dem ak benn frustration comprendre nga mhm. dem eh, ñu ñu aj ma foofu benn su ma jugul benn trois ans mhm. ma toog trois ans yooyu biir ko mais toog bi ma toog yëpp man maa ngi doon entraîner mhm. tooguma rek topp sama liggéey bàyyi entraîner dama doon toog di liggéey di entraîner chaque jour di jàng façon xeex nag boo xalaat boo xamante ni mbëri xalaatuñ ko sax jàng comprendre nga parce que dama doon préparer depuis Espagne pour dugg def MMA yaa ngi comprendre mais après mais bi ma defee sama retour nag ba ñëw Eh, mi ngi mel ni Zarko mosul jóge ci làmb ji. Mhm. kon donc mun naa ni am na benn côté boo xamante ni eh, baax na am na benn côté boo xamante ni eh, baaxul. permettre na nga jël recul quoi si recul pour pour xam fan nga jëm ci làmb ji mais man duma génération ñoom Modou Lo ak ñoom Balla Gaye de. <laughs> yow Modou Lo mooy sa morom. non ñoo ñoo ma mag. Ah, doon àndal ñu naan da ñoom ñoo ma mag fuuf. Zarko hmm. man ñi may bëreel nii. ñoom Diène Kairé ñoom Ada Fass ñoo ñooy sama morom. mais Zarko. yow ci euh, làmb nag boo xoolee niveau làmb maa ngi yow sa combat yaak euh, parce que gis naa la xaw ma nettali lañ ma sax parce que gis ma ko Assane Mesare bi moo ma nettali ne xaw ngay toon tontu Kona comprendre nga ci li nga xam ni wax na ko ci yow yaak Siteu kañ ngeen fi juboo parce que yow yow ak Siteu seen làmb ja nga xamante ni bi amoon nga boobu da nga ne yow yaa daan maa ba tey te dama maa daan comprendre nga léegi yow ak Siteu kañ ngeen fi juboo ba ngay jël. Euh, défense su du question juboo. waaw du man ak Siteu mosuñu xuloo bay juboo. Hmm. dañoo bokk liggéey rek. après ku nekk da ngay liggéey rek yóbbu sa kër bàyyi. waaw mais xuloo moom mosuñu ko def. terewul mais làmb làmb jooju meroon nga ci. làmb jooju meroon naa mais meroo ma woon Siteu. koo meroon. maay ñi ma meroon mooy. Euh, euh, arbitre bi. Mhm. ak CNG tuuti. Ah. mais arbitre bi defoon nga sa recours ak bi laa gënoon mere parce que arbitre bi xam na ni Zarko moo daan si. mais bi nga defee recours am na ñu bari ñoo a daan ci ñu def recours après CNG xoolaat vidéo yi xam ni kii moo daan ñu jox ko victoire am. après ñu wax bi ñu bindee recours bi laa ne leen jaru ngeen koy def. da ngeen da ngeen yàqaar xaalis mais duñ ko jox victoire duñ ma jox hmm. victoire. Hmm. parce que ñoom hmm. moom lañ bëggoon ma daan. moom la ñu bëggoon mu daan moom la waaw comme Ada ni ñu bëggee woon. Ada Fass daan bien bien bien sûr yow sama làmb ji man ak Arafas am na quatrième arbitre bi. Hmm. waaw dugg naa si biir bi Arafas di dugg ci biir ma koy tooñ quatrième arbitre bi nañ dem ba si kii ànd ak Arafas ne ko yéen jarul ngeen di wax ak kii dem leen kii da ngeen koy ñëw daan léegi. Hmm? arbitre asim quatrième arbitre bi lu tuuti. ma ma ma tourné ñëw di xuloo moom ne yow li ngay wax nii loolu du sa wax ba ba gaayan bi leen fi indi ñëw ne ma lan la la wax. ma ne ko ah. kii war na taxaw ne man Ada Fass may daan en tant que mbër. mu man ma war a compétir léegi. neutralité sax non non arbitre moom bu defee loolu dañ ko war a ah. éliminer. man si arbitre ba bon si technique laa war a ne kii mais si arbitre boobu sax laay duggee. waaw parce que euh, euh, arbitrage bi yéen bi ñu leen di woo pour pour pour li ñu leen di dagg noonu. arbitre bi day taxaw souffler pour ngeen ngeen ñëw ñu ngeen bañ. Hmm. wala yéen la ñuy yéen la ñuy xaar parce que moo war a jiital moo war a jiital. mais wax a waaw parce que bu doon bu doon li wax question bu man boo seetloo ah. boo seetloo. li nga wax question bu am solo boo seetloo mais yoram boo seetloo sama làmb man ak Ada Fass man euh. pare naa bu yàgg dem ci arbitre bi naan ko pare naa. waaw. parce que loolu yëpp waa CNG waxoon nañ ma ko quoi avant ñuy dem ñuy dem. Ah, stade parce que li tax ma nee nañ ma yow fexeel ba. xam boo fa defee coow moom mooy dañ lay dàq. Hmm? ban problème nga am. <laughs> parce ban problème Omar ma li may def làmb la li may def moom la mbëri di def. mooy ça ba li tax Omar. Eh, li tax moo ko bokk. boo gisee ba ñëw boo gisee ba ñëw stade nii def tekk man ak ah. Arafas. waaw seen dañ ma dugg si ruxure. Ah. non dañ ma ni yow. def nga dara rek mooy delloo nga waat. <laughs> mais Omar Omar boo déggee maa foofu mooy. dama gis ne nit ki bala ko <laughs> koo dagg bala nga dagg bala nga koo dagg daa am foo koy teg mooy bu arbitre bi ñëwoon si digg bi woote loolu mooy lu norme si armar si sport quoi sport normalement te ki ki ñëwut te trois fois trois fois ngay woote mais mënoo xaar gars yi dugg yow nga door a ah, woote lamb trois fois la ñuy woote non sport yëpp kay voilà léegi coup trois appels la bu ci football ci bëre ci basket ci arts martiaux ah. yëpp dañ lay dañ arbitre bi mooy ñëw bu wootee yow boo bu wootee woote waat waat yow yow boo ñëwul uh-huh. ñu door a war a jël dagg mais waruñu laa dagg te yow te woote wuñ ba dugg ci biir beneen beneen kii la parce que parce que bokku mbër ci ruq ne <laughs> <laughs> mais ma boroxal ma boroxal foofu côté côté côté technique yow euh, kii bi nga def noonu mais technique bi balayage bi nga nga nga nga daane kii bi hmm. waa ji ban instant nga xaat ne moom moom nga amoon kii bi parce que da nga sant ne yaa doole wala kele kele boobu kele mouvement boo xam te ne ni mu ànd yow tu es obligé euh, boo defee noonu dina daanu. non loolu judo la. Hmm. judo la parce que. waaw c'est mais technique bi li ñuy dox lépp. Ah, ah, ah. li ñuy dox yëpp man maa ngi koy maa ngi calculer démarche yu muy def. fu mu teg tànkam maa ngi koy xool. maanaam nekk na loo xam ne dama ko togg ko mais après bi ma bi ma defee faussage bi ba pare. da ngay def da ngay def rotation épaule bi. pour nga xamante ni yow yow di nga egg suuf mais moom moo lay jiitu mais nag naa la xamal leen man xamoon naa ni côté boobu laa koy daaneele xamoon nga ko. Mm-hmm. si mooy mooy loolu nga pro comme da nga dafa da nga boobu nga wax mooy. loolu nga ah, préparé lu taxoon nga xamoon ko. Hmm? lu taxoon nga xam ni nii. parce que dama xam ni moom mbotkat la. ah si. Mm-hmm. te mbotkat bëggul ku koy dóor tànk. d'accord mbotkat kuy jël tànkam la bëgg. mais ci biir combat bi dafa am lu xew. loo xam ne ñu bari commenté nañ ko mooy sa baaraam bi nga yëkkati man du ma def geste bi quoi <laughs> la kan nga ko doon def ak loo jub. non loolu loolu kii la rek sportif bu yaramam tàng la rek muy def doonu parce que xama rek. mooy loolu ay wax ak ay lu nekk am na ci. donc ñun mais est-ce que loolu man bi ma seetaanee combat bi dama ne li euh, Zarko li muy def du yoon parce que lii da koy déconcentré. no mais loolu. wala yaa génnewu la ci concentré wu ma de. laa la saa yow man dama jëloon sama sac. Mm. def si pusale. bu ma Ada Fass daanoon damay tiire foofu sama bopp dee. bul tax ci lamb ji lu leer laa la wax seet di la visiter. bu ma Ada Fass daanoon foofu damay ter sama bopp ma tiire ko ma dee. lu tax lu tax mu jaral parce que du moom parce que wax yi mu doon wax xas yi mu doon xas di xas Grand Yoff di ñu di ñu wax lu nekk. loolu ma loolu moo ma gën a dugal ci làmb ji. mais sport la bokk. Mm-hmm. non sport. waxuma sport yow fi eh? Eh? wax nii. ma wax la sama yaay musul wax si làmb. waaw wax na ci dama dem bay non waxuma la lu mu wax de après. Mm-hmm. après wax na wax boo xamante ni xam nga ñu bëri kontaan nañ ci naan ko ne maire bi baax na affaire yi noonu mais bi may dem di génn daf ma kott téye ma ma ne ko lu xew mu ne ma. parce que man bi may wax sax léegi. Mm. waxuma. Euh, ndeysaan waa ji li mu wax mais fi may waxee mooy. comme euh, ça daanu bi man nga mën nga bëgg a daan mais nit ki ñëw daan la man nga koo man sax mu daan la. Ah loolu c'est normal. Ah, mais mais nag rangoo ñi jaru ko quoi. Ah, mais gë gë gëree nga champion nga. boo daa boo daa champion nga futur roi des arènes. waaw mais buy wax ci yaayam fa muy toll. waaw bien sûr moom moo ko xam. dafa sori ci moom. oh là là Zarko mi ngi noonu. désolé je crois que foofu la ñu koy yemale. Omar parce que il est presque l'heure ah, donc mi ngi noonu kon Zarko le grand champion dooroon suñu gan. ñu ngi koy masawu bu baax parce que jublu woon ci woon lii aussi itam bëggoon a waxtaan ba mu jeex. mais ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ay xéwal. Euh, maanaam rangoñ yi mu tur yàlla na doon ay rangoñ yu xéwal rangoñ yu roi des arènes ñu ngi ko koy ñaanal ndax yéene nañ ko ko parce que aussi bi mooy deuxième fois mi ñëw suñu plateau heure bu ñu ko waxee day ñëw toog te bariwul li ñuy dalal ay mbër. mooy wane ni moom ci kër gi la bokk di gërëm Assane aussi te bu baax Assane Mesere ñu ngi noonu le grand <laughs> liiru day ñëw liir <laughs> ajaratu ah, kon kàddu gaagu ok waaw ñu koy jaajëfal bu baax a baax xol bi moo tooy ñu comprendre ko moom Zarko ñu ngi koy ñaanal carrière bi suñu borom teg ci loxo. lu ma lay maye tey émission bi en direct la solution info. TV ah. du ah, lundi au mercredi du lundi au mercredi ah. naan abonné te dugg ci internet bi. solution info TV. waaw